sanctionné soo gisee sax ils se rejettent la balle alors ban taxaway la la ñu am exactement. dama ni ministère éducation nationale lawal ngóor jigéen lan ko jox comme projet. gis nga wax ji bu nu wëral wëreul ak di layam layam yi nañu wax dëgg gi te mu am parce que ministère éducation nationale banqaasu ministère bi yépp am bureau genre genre comme nim ko waxee ni ci aduna bi yépp définition bi ko gor jigéen ni jox moy ñi nga xamni duñu gor du ñu jigéen dañoo nekk ci loo xam ne wuute nag li ñëpp xam. ay loo mais danga may déglu rek moom kay li may wax lu leer la dama ne la bureau genre yee ngi ñu ngi ñu ngi ñu ngi ñu ngi wesar ci biir ministère éducation nationale boo demee ci IA yi ña nga fa. boo demee ci IEF yi ña nga fa boo demee ci lycée yi ña nga fa boo demee ca niveau central ba ña nga fa ñanga leen defal ay direction pour di yaatal nguur jigéen ci njàngoom Sénégal lii moo am genre xalaatu tubaab yi la tubaab bu jëmee ndar du ni bërët jëm ndar danaan la nañ dem ba Thiès bu demee ba Thiès mu ne nan ñoqali ba Louga bu demee ba Louga mu ne ah est-ce que duñ jege booru paal buñ toog a mu ne yegg si nañ kon nag nan leer genre bi lekkool lal mooy lawal ngóor jigéen ci àdduna bi concept genre bi loolu lañ ciy dugal moo tax mais luy xoolal lu ñu daan ci permis yi lu ñu ci bindoon du genre lañ bindoon te ñun liñ mosoon a xam mooy sexe masculin sexe féminin ñu dem dindi ko def genre léegi bi coow li baree ñi mujj am permis dañu dindi nañ ko parce que coow bari ñu dem jëndi genre bi légui defaraat nañ ko ba maa ngi wax sénégalais yi ni def leen ay certificat de perte ngeen dindi genre ci sen ci sen permis parce que permis yëfu góor jigéen la xam nga ñun li ñu gëm moy nen dafa am lu Cheikh Omar Talla junju sank bu ngeen fàttali ko ci élection présidentielle 2019 dafa am turu ben candidat bu feeñoon ci ben feuille d'examen ci biñona bam mu ci biñona ci feuille d'examen nekkul sax ci biir texte bi de mais ci côté bi ci marge bi lañ lañ ko bind mu génnaale léegi biñ ko joté élèves def nañ sen épreuve ba paré mais buñ ko yégué ñom autorité yi comme candidat bob sen euh, ci opposition la bokkoon ñom dañoo décider ni daal di jël ndax wax IA bu ko relever le proviseur relever le censeur relever le surveillant général pour par mesure conservatoire avant ñu def enquête bi ñu demee ci Matam comme nous ko waxé daw ben euh

ñu dem taxaw ci buntu la koy répété ci texte bi en anglais dans un bon anglais De raconter def récit wu li xew posé leen ci ay questions pour jàngal leen lan mooy immunité parlementaire en anglais man bi ma ko liiree dama ne un excellent prof d'anglais, parce que man nag mun naa ci wax comme je l'ai dit parce que évaluation laa jàngi woon Angleterre après samay étude à l'école normale mais non seulement loolu bi bi ko yëgee ñoom neexu leen mais dañ koo dañoo dañ ko relever de ses fonctions waa léegi tey donc tey tey tey mais loolu la ñëpp di xaar mesure conservatoire bi ñuy xaar mooy ñu relever l'IA de Rufisque relever ki nga xam ne moom coordonner discipline au niveau de l'IA au niveau de l'épreuve d'anglais en attendant que ñu def enquête comme une ñu ko defoon ci ñeneen parce que tamit par respect aux Sénégalais nous def lii tey pour ñee mënuñu nekk ci réew mi am ñoom dañ leen di ak ñoo xam dañ leen di duma bu ñu defee erreur kon leen jàpp mooy ministère éducation nationale li mu war a njëkk a def mooy tekki ndomba tànk IA euh, euh, Rufisque pour pourquoi parce que nee na da doon leeral li ngay wax bu dee président Macky Sall dafa gëm ni nguuram nguur jigéen du fi law képp ku def yëfi nguur jigéen wala ngay lawal nguur jigéen dañ naa war a rëq sa ndigg comme ni muy def ci li nga xam moom la gëm à chaque fois ku jalgati li ko neexul kon jàpp naa ne actuellement loolu bu ñu ko defoon ñu relever l'IA da doon permettre te gis naa euh, mon ami euh, Omar Faye ñi nga xam ñoo ŋànk diine ji Rufisque def nañ seen déclaration wax ni yëfu caaxaan yooyu du am ci ville de Rufisque parce que ñoom bokkul seen ak seen aada bokkul ak seen cosaan mais may jàpp ne kon président Macky Sall bëggee lancer un message très fort dañuy relever l'IA pour dalal waa Rufisque parce que waa Rufisque mer nañ comme ni Sénégal gépp mere tey <laughs> ñu relever également ki nga xam ne moom moo joxe épreuve bi pour par par pour pour pour pour que mu am dissuasion pour mu am un effet dissuasif. pour que ñeneen un ko nar a def. Mhm. ci yeneen département yi ak yeneen régions yi duñ ko ñemee def. mais loolu xamul tax man ni du ko def mooy ministère éducation nationale mon jox document yi département yi nga xam ñi ngi def ay séminaire ci nguur pour di woon nit ñi nan lañ mën a leerale xale yi ne danoo accepter l'orientation sexuelle des uns et des autres. pour que ku bëgg a nekk góor jigéen ci biir Sénégal nekk ko parce que comme ni ma leen koy waxee seen objectif mooy tout tànk yi comme Sénégal xam nañ ni nit ñi seen ngëm-ngëm xës nañ koo am ba pare ci ay mag lañ dootul neex pour mu gaaw am benn benn nag comme ni ko waxee yi dem ci xew yi mais xale yi tut tànk yi lañ bëgg gaaw këf leen këf leen mooy gëm loo leen ni góor jigéen baax na bu ko defee yow loo mën a def boo màggee dangay dem ba accepté ko même boo ko nekkul te ñu bari ñoom dañ ko nekk loolu mooy objectif bi léegi nag moo tax ñu jaare ko ci école parce que école bi mooy tàggatu tànk yi kon nag may wax jàngalekat yi fa laay daane la nee na s'il di wax jàngalekat yi bis bu ngóor jigéen lawee ci askan wi jaare ko ci ñun dinañ am gàcce gu yi parce que ñun Sénégal ñun jàngalekat yi sunu ndam mooy ñu tàggat ay tout tànk yoo xam ne ëllëg danañ nekk mag ñoo ñoŋ ñu jariñ seen bopp jariñ seen askan jariñ seen réew kon bu jaaree ci ñun jàngalekat rek suñu gàcce la kon képp kuñ fa woowati séminaire ci ci département yi di fa wax ay violence basée sur le genre muy ngóor jigéen parce que loolu lañ tudde ñoom violence basée sur le genre ñun Sénégal lañ fi xam mooy góor wala jigéen kon na seen genre boobu yëfu salte la yoo xam tubaab bi ñoo ko bëgg a imposer jàngalekat bu ñu ci woo ci séminaire boo demee lankal bu la ko IEF bi defloo woonu ñun syndicat yi ndax ndaxte ñun ànduñ ci bu ko defee en tout cas ñun danañ taxaw taxawaay bi ñu ci war a taxaw bu ko defee ñu dénoncé IEF bi bi koy def parce que am na IEF yi ko commencé def kon nag na ministre bi jël ay responsabilités te gis nga bu ñu fi andi buñ buñu bu ñu teeyul musiba dina dana am ci école yi parce que nañ jàmmaarloo ak ñoom góor jigéen du ñu am benn espace bu ñu leen di may Sénégal xamuñu lu ñu gëm falaay daanale Ababacar Mbub mm-hmm. nga xam dafa wax ci suñu tur ñun ànd sàmm jikko yi ñu bokkoo traité de salafiste di ko traité de quelqu'un boo xam il est radical ñom loolu lañ ko tuddee comme ni caricaturer islam nan islam radical man limu mu lay waxat waxaat jigen bu fi taxaw di jema nan da ngay fessel sa ngóor jigen ak da ngay def ay ay ay ay ay ay marche ci mbeddu Ndakaar yi wala mbeddu Fatick yi wala feneen dinañ talal sa nunara mbaa ñu tàpp la dinañ talal sa nunara ci lu ci lu kenn du yorante duñu ko nangu tay duñ ko nangu ëllëg góor jigen ah. du am benn doole fi Sénégal affaire Sénégal du France Sénégal du France Sénégal du États-Unis Sénégal du Angleterre ku bëgg a nekk góor jigéen wutal sa billet nga abal ñu sunum réew nga dem togi Angleterre wala États-Unis wala France fa nga am ñom gëm ñu Yalla gëm ñu yonent bi nga nekk fa goor jigen mais Sénégal ku ko fi bëgg a lawal ñun sénégalais ñoy ñooy law ak yow. déjà discours bi motax xamna wa naa <laughs> e génné sen communiqué. dinañ ci ñëwaat dinañ ñëwaat ci communiqué bi maa ngi ñëw maa ngi ñëw euh, Dame mais mais mais Pape est-ce qu'on peut s'attendre à des sanctions justement euh, par rapport euh, à l'IA non man euh, bu ñuy sanctionner véritablement ki ñu sanctionner le ministre de euh, l'éducation nationale. Mm-hmm. parce que as dit, moom dafa offensé tout un pays. Imaginez, imaginer on ñu un texte le caricaturer président Macky Sall sa famille ministre de du du alors Macky Sall sa famille surtout le Sénégal te caricaturer tout un pays daf leen Je leen insulté Je nga lu ci je a doy Je man bu ma je daam déggu Bamba Je peut-être euh, réalité débat dootul amati fii ay weer nga nouveau code de la presse bi bu en vigueur. ce genre de débat dootul ci plateau télévision. c'est-à-dire parce que ci code de la presse bi. dañuy nit ñi article 18 dañuy nit ñi orientation sexuelle nit. dañuy organiser tes manifestation ci du ko couvrir parce que boo couvriree du dial wala boo ko jàllee ñi nga xamante ne autorité régulatrice yi dinañ ñëw fexe ba li nga xamante ne euh, ay sanctions dañ koy teg ci télé code de la presse bu bees bii. waaw léegi code de la presse bon. dem na assemblée nationale assemblée bi ay jullit wala ay religieux fa bu dul jullit di ay catholique ñoom ñu xool code de la presse bi ni nam dañuy dem Touba dañuy dem Tivaouane wala dañuy dem Popenguine té dañ ko valider. defuñu ci amendement. code de la presse boobu tay ji rédaction yi journalistes yi ñoom ñëpp dañ ci nopi quelques-uns nga ci dégg ñu wax ci article boobu nga xamante ni ji buñ ko buñ ko buñ ko euh, téggé bu mu nek en vigueur débat bi dootul amal sur la place publique légui bu débat bi amatul bu ñu tegee épreuve bo xamante ci homosexualité la fan nañ koy dénoncer donc je crois que ni ñom actuellement li ñu soxla won ñu koy am te légui ñu yegg ci fu ñu jëm motax ma ni peut-être bu ma déggé ngén di du fi am doole damay naan peut-être yéen da ngeen gisagul réalité bi réalité bi tay jii moy homosexualité góor jigéen yi dañu am doole ci réew mi te dafa am ñu leen di jàppale te nëbbatuwuñu. nguuru président Macky Sall. waaw soit mën na doon nguuru président Macky parce que xam nga